internationale. C'est l'info internationale. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot yu wér te wóor aju ci mi ak ci international jërë jëf yaa mbégte ak contentement ba tey di leen dalalaat ci seen yor-yoru. Sene Info mu di ci ànd ba tey ak sama naataango bii di Bour Sine mu Ndofène leen Diouf Bour Sine ma bàyyi la nga nuyoo ñu daal di jàll si waxtaan bi. su Assane maa ngi lay nuyu di la siyaar bu baax ci àjjuma ji di nuyu itam euh, suñu cadre bi nga xam ne mooy Abdel ñu bokk ay gërëm nga xam ne saa su ne ñu ngi bàyyi xel suñu différentes plateformes yi muy site bi seneinfo point net chaîne YouTube bi seneinfo international ak suñu différentes yi ci réseaux sociaux yi di amaat mbégte bu baax kon di leen dëgtal li nga xam ne moom mooy yor-yoru seneinfo. jërëjëf Bouck si ñu tey nag waxtaan bi dinañ ko def si ñaari bi nag ñu daal di dalal suñu gan yi li ñuy njëkk waxtaanee nag moom Macky Sall mi ni nii amaloon si loolu amoon na fa conseil présidentiel ak conseil des ministres loolu yëpp dinañ si ñëwaat si Sonko mi nga xam ne moom tamit demoon na si Padoa seeti bi loolu tamit euh, li fa jot a xew yëpp ñu ñëwaat si ak yow bu ko defee rek bu ñu defee si Sonko ba tey moom tamit tey ji amaloon na meeting waroon naa am meeting fële ca Mbacke waaye bi daan na di ko rejeté ñu jeexale ko rek ak accident yi amoon euh, démb bi si njëkk mooy si autoroute à péage bi bu si mujje nag beneen accident bi mooy bi amoon ci terre bi si siiree ñu daal di jàll si waxtaan bi waxtaan si euh, Macky Sall mi xam ne démb amoon na conseil présidentiel ak conseil des ministres fële ca Thiès waaw soxna Assane kon ni nga ko waxee rek euh, njiitu réew mi Macky Sall xam nga mercredi ba léegi kon ñu ngi foofu la ca Thiès di fa amal ab tournée économique euh, ci loolu nag euh, comme ni ko waxee jot nañu amal euh, ab conseil présidentiel muy démb wante itam li nga xam ne moom mooy conseil des ministres jël nañ fa nag ay dogal dogal yu am solo bokk na ci nag ñu ne ay investissement yoo xam ne dina toll ci mille cinq cent milliards ñu fas yéene koo jagleel li nga xam ne moom mooy euh, kon euh, région bu Thiès ci nag euh, programme d' investissement communautaire deux mille vingt trois deux mille vingt cinq bu sukkandikoo kon ci li nga xam ne njiit réew Macky Sall noonu la fa wax bu ne ba léegi programme d' boobu nag nga xam ne kon validé validé nañ ko sax ci conseil des ministres bi nga xam ne après amoon na fa ñu war ko nag kon daal amal ci li nga xam ne moom mooy secteur bu bëri la bokk na ci. Euh, consolidation ak li ñuy vocation militaire maanaam lii di l'armée beeg yooyu euh, ña faree ca Thiès ñu leen di suqaliwaate ak lii di renforcement maillage sécuritaire bu ba léegi nga xam ne moom mooy développement bu pêche ak économie maritime foofale ca région bu Thiès yeneen i pêche bokk si mel ni emploi des jeunes ak li euh, ñu mel lépp daal di milliards yoo xam ne kon koppar yu takk la ñu fas yéene dexe ji foofu la ca Thiès kon ñu ngir suqaliwaat euh, euh, li nga xam ne moom mooy euh, région bu Thiès bokk na ci am chemin de bi nga xam ne dugg nañ ko loolu lépp daal boo ko boolee li bëgg a def yëpp mën tënk ci budget bu toll ci mille cinq boo xam ne fas yéene fas yéene ko fa def ci conseil des ministres boobu tam njiitu réew mi jël na ko ay dogal lu ci mel ni Abdoulaye Diagne mi nekkoon inspecteur principal des impôts et domaines nekkoon it euh, directeur euh, des grandes entreprises à direction générale des impôts moom lañ ñëwee directeur général bu impôt et domaine mu tudd fa kii di euh, Bassirou Samb West beneen décision mooy ki ñuy woowee El Hadji Mamadou Diaw di inspecteur principal des impôts et domaines nekkoon nag directeur des domaines ca direction générale des impôts et domaines moom la def directeur général de la caisse des dépôts et consignations mu remplacé ko kii di Cheikh Ahmed Tidiane Ba ba léegi ci ay dogal yoo xam ne jóge réew mi jël na ko fa euh, Mamadou Gueye di inspecteur euh, principal des impôts et domaines nekkoon chef du centre des moyennes entreprises euh, numéro un la ñu directeur des domaines utu ki nga xam ne mooy El Hadji Mamadou Diawo soxna Assel Euh, tudd boobu nga xam ne nag ñi gërëm Macky Sall mu ngi ko nga xamee ne amal nañ ak conseil présidentiel ak décision yi ak conseil des ministres des na yeneen activités yoo xam ne njiitu réew mi war na euh, ba war a jaaree Tivaouane ba itam euh, lancement travaux

Euh, day jóg di seete ñi nga xam ne ñoom ñooy ay euh, maire euh, maire yoo xam ne nag dañoo bokk ci lii di Yewwi Wi gannaaw bi mu demee Parcelles Assainies yi dem Colobane dem nag demoon na fële ca Patte d'Oie wante foofu nag dañ fa jotoon nemmeeku ay daal jafe-jafe bokk na ci ñi tam ñi nga xam ne dañ ko toppoon te ñi nga xam ne nag ñoom ñooy force de l'ordre yi euh, tasaare leen euh, ak i gaz euh, lacrymogène xam nga maanaam comme ni koy waxee rek Ousmane Sonko moom saa su jógee rek da ngay gis li nga xam ne moom mooy pour biir zone yi nga xam ne dañ ko bëgg gëm ko dañ koy topp bu ñu sax da ngay gis ne jeunes dañuy topp ndax man jàpp naa moom benn visite boo xam ne dafa jógee rek pour dem seeti ab maire boo xam ne moromu maire am la ci cadre partenariat yooyu muy waxtaan pour man laajul woon pour boobu jóg ne dañ ko def ba léegi tam bu fekkee ne maanaam dafa jóg woon kay ñi dañu topp ko bu boobaa euh, mënu ci dara euh, euh, nga xam ne ñoom ñooy force de l'ordre yi tasaare leen ay gàtt nag bi mu dem jot na fa jot na faa jot na faa tàkk gis nañ sax ci image yi am koo xam ne am na si ay euh, gaañu gaañu lii loo xam ne dañ koy déplorer encore une fois wante comme xaa ndi kiiré ne maanaam bu fekkoon euh, droit de droit liberté de circulation droit la boo xam ne moom bépp bépp bépp citoyen am na ko kon maanaam dañ naa jàpp ne Ousmane Sonko am na droit jóg euh, bëgg ñemee ko ñoom meeram mu jóg dem ñeme a quoi wante nag bu dee nag jub boobu nag après day amaale mouvement ak i demee noonu loolu fa la coono nekk nag maanaam tey ku jigéen day gis ay topp ko maanaam tey jub alal public bi nga see am euh, ak ñu mel ñu bloqué yoon yi bloqué tali ak yooyu euh, peut être kon ñoo di intervenir peut être yaakaar naa loolu day indi coono euh, le fait que jub la ñooy tam jigéen topp ko ngiiraan am os dana di jóg talaay xam ne sax xasaay ak ñu mel mais ak lu mu mënti demee rek li ma la droit libre circulation moom droit la boo xam ne ñii euh, di euh, chaque citoyen chaque citoyen kon am na euh, liberté boobu jóg doxal soxlaam librement amaat na bu fekkoon ne ñii jógul dopp moom jaraam ak yooyu mun na mun na am dara lu ci xew soxna Asel mm-hmm. jërëjëf buuru ba tey rek si leeral yi si loolu tamit xam naa dañ koy jeexalee ak accident yi nga xamante ni ñu jot a fi xew ni ki démb si autoroute ak yàgg bi nag am na benn accident bu ñu fa nemmeeku si yoonu toglu benn camion ak benn oto si loolu nag am na ñeenti doomi aadama yu si jot a ñaati seen mbaggat si teer bi tamit ñu ngi si gis premier accident depuis bu ñu depuis bu ñu sosoo ba tey def na at ak lu tey démb lay doog a am benn accident bi nga xam ne benn nit moo si ñàkk bakkanam euh, Bour Sine. waaw xanaa rek balaa may ñëw ci accident yooyu damay euh, wax rek ci beneen bëri boo xam ne peut être suñu loolu la muy euh, meeting bi nga xam ne dañ ko war a amal fële ca Mbacké ñoom waa Pastef ko maanaam réponse négative lay jox parce que daal dafa ne ci demande ba nga xam ne eh, bind nañ ko dafa am yoo xam ne kon dañ ko ci waroon def te defuñu ko ca ba tax mu di euh, kii di préfet kon bu daf ko déclaré euh, irrecevable quoi wante nag loolu terewul nga xam ne comme euh, moo jur moom la lañ koy amal mais tey jii tam njiital Pastef bi nga xam ne dañoo ñu koy xaar Touba ba léegi ñu ko koy xaaral bi nee nañ bisu tey bii dina jullee ajuma foofule ca Touba te ba pare dina kon nag donte boobule meeting Euh, du am ndax dégg nañ sax ñu naan dinañ ko def par la façon yu ni mel mais nag li si mën a jàpp daal mooy déposewaat nañ beneen euh, beneen boo xam ne nag nee nañ prendre nañ en compte manquement ne moom am na si demande bu jëkk ba nee euh, nañ nag kon tey di def passé dina julli ji foofu la si jubaat dafa jullee juma te it donc comme comme que amuñu meeting nag comme que nee nañ meeting boobu amul dinañ nag amoon loo xam ne kon daal genre xam naa benn doxantu lay doon ci liñ dégg dina dana amoon kon dinañ amal benn doxantu boo xam ne kon foofu lay doon ca Mbàkke di xaaral benn meeting boobu ci na ci tali bi lu toll si juróomi nit ñàkk ci seen bakkan ñeneen nit am si ay gaañu gaañu muy nekk kon ci autoroute autoroute à péage bi sensu AIBD jëm Dakar muy leneen li ñuy déploré ko encore une fois di mooy ñi nga xam ne ñoom mooy chauffeur yi ñu gën a aussi def euh, vigilance ci kaw lii di kaw lii di kaw tali bi. beneen accident bi nga xam ne wax na ko dëgg la mu ngi amee ci train express régional bi bi mu commencé daw léegi attaque nangam kon euh, mooy accident bi njëkk bi nga xam ne déggoon nañ ko ci ñu ne loolu nag mu ngi amee ci euh, fii bi Rufisque. maanaam ñu ne à 300 mètres ci gaaru Rufisque bi foofu la jiyee jooju amee kon train express régional bi am comme que waaw na ay ne moom mooy euh, circuit bi kon euh, wante dañoo njort nag ne nga xam ne kon moom moo loru ko mën a jàpp ci boobule accident muy train express régional bi euh, comme laal. muy ñett ba kanam ñett mel ne eh, ku ànd nag xelam la soxna askan waaw bu sin di la jaajëfal ba tey si yaatal gi a ngi woon ci seen première partie Yoor Yooru SeneInfo ñu daal jàll si deuxième partie bi euh, ma di ko bàyyi ak bu mu dalal suñu gan yi di ma di waa membre euh, marché international bu Dakar Ceytu nekk marché boo xam ne ñu ngi koy amal chaque année ngir sargal kii di Cheikh Anta Diop ci loolu ñu ngi dalal ku ci mel ni Nico Junior Boissy ak kii di Samori euh, di leen jox di daje ba lundi incha allah jërë ngeen jëf bon week-end à